أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di ziyaara di leen baal wax di leen baal wax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala sunu jotaay bi yàlla na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu ci bég vraiment ñëw fii tey ñëw Thiès surtout côté bi ci wàll wi nu ñëwee tey mu nekk sunu jotaay bu njëkk ak yéen te dara waralu ko dul seen benn mbokk boo xam ne diineem ñor na ko ñor goo xam ne daanaka semaine bu nekk moom moom mooy ëpp lim may woo daal ci jokkoo ci wàllu diine loolu moom mooy sama sabab ñëw fii tey ziyaare ko ziyaare waale ay mbokkam ziyaare waale leen ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yàlla nangul nu ko kon mbokk yi sunu fàttalante ak yéen li muy njëkk a nekk mooy benn kàddu ci kàddu yàlla yi tabaraka wa taala ci quraan yàlla jagleel ko diggante nit ak soxnaam muy borom kër ak soxnaam bi muy denc ci suratul baqara yàlla mu ngi fay wax hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna yéen góor ñi yére ngeen pour seen soxna yéen soxna yi tamit yére ngeen pour seeni borom kër aaya boobu mbokk yi su fekkonte ne tey aaya boobu tey su fekkonte ne doomu aadama yi maanaam ñoo ñuy wax way dencante diggante nit ak soxnaam su fekkoon ne aaya yooyu dégg nañ ko rek kon kër yëpp aljana lay nekk ndax yàlla da ne góor yére la pour soxnaam yàlla ne waat soxna si yére la pour borom këram ñun ñu toog fii yëpp kenn kuñ ci laaj yére luñ koy doyee looy wax kon yére dafa am importance ba pare mu am ay façon am yére boo xam ne dañuy dugg ak moom sangu am yére boo xam ne dañ koy toilettoo am yére bu ñuy duggee waañ am yére bu ñuy fanaanoo kon noonu waa ji wala noonu ndaw si utee façon yére yooyu fekkee dégg nañu wax yàlla ji yàlla ne góor yére la ci soxnaam kon moom ku góor kooku soxna si muy tànn war na koo féete fi ko yére yee di féete waaye soxna si tamit borom kër bi muy tànn war na koo féete yére yee muy tànn ci waxtu wu nekk ci moment bu nekk loolu tax yàlla subhaanahu wa taala ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ñoom mbalaan lañ pour yéen waaye yéen tamit mbalaan ngeen pour ñoom moo tax mu ne soxna ci biir këram sitrun wa siyaana dafa nekk kuy aar góor waaye ku koy protéger lan la jigéen di aar góor comme ni yére di aare nit ci yaramam mbokk yi ñun ñu toog fii yëpp xam na ne ànd na ànd dëggal ne am na façon yére yoo xamante ne doo ko sol fu nekk bañ nañ ko ba ñu wut seddaay dañ koy utal yére tàngaay dañ koy utal yére voilà noonu ku góor di solee yére pour protéger wu ci ngelaw wala protéger wu ci sedd wala protéger wu ci nangam ak nangam noonu la jigéen di aare góor ni ko yére bi di aare noonu la ko ndaw si di aare lan la ko ndaw si di aar ci yàqute ci ay bànneex yoo xam ne daf ko waroon uti ci àll ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu la jigéen rombee sa xel nekk ci moom pour nga yaru yow ku góor yonent bi nee na dellul sa biir kër rek kii nga bëgg a topp li mu yor ba nga bëgg koo topp loolu la sa soxna si yore kon jigéen dafay aar góor loolu mooy tomb bu njëkk ñaareel kama yasturu libas saahibuhu fa rajulu himaaya lil mara ni yére di aare boroom noonu aussi le góor di aare jigéen kon ñoom ñaar dañuy aarante ku am soxna rek aar na la aar nga ko parce que dafa waroon wuti ku mel ne yow am na la doy na dafa waroon yow tam da ngaa waroon uti jeex na kon kenn ku ci nekk ci ñoom dañuy aarante ci lépp loo xamante ne daf koy agressé di yàq jikkoom di yàq diineem kon ndeke gis ngeen sëy du question rek bànneex biñ ci wut waaye ndeke sunan min sunanillah yoon la wu yàlla tëral woo xamante ne pour àdduna jag sëy yàlla daf ko jaaral ci àddina pour àddina jag moo tax mu sàkk góor sàkk jigéen yàlla bu doon jaamu kese kese kese la bëgg kon day wàcc ay góor kese rek di leen julliloo rek waaye dafa bëgg nit ñi dund dundin woo xamante ne doomu aadama day des ci kaw suuf waaye ci yoon wu légal soo bëggee góor yow soxna si ku jigéen ki su fekkee sa yaram dafa aajowoo góor nga jaar ci yoon wi nga xam ne dina dagan ba nga am jaamu yàlla ci loolu nga bëgg a def su fekkee ku góor tamit kazaalika mu jaar ci yoon woo xam ne dafa dagan mu am yàlla am tiyaaba mu ne naka noonu kama yasturu libaas jamiil awraat illa ma la buddu minhu fa kazalik al rajul wal mar'a sitrun lil uyub war rida bil maqsum mbokk yi buñ delloowaatee ci njëlbeenu aaye waxi sunu boroom mu ne ni yére di suturaale yaram naka noonu la sëy di suturaale góor ak jigéen naka noonu la góor di suturaale jigéen ci ay manqué manqué léeg-léeg nit am benn handicap ci biir yaramam waaye yére bi mu sol moo tax kenn du gis lan kenn du gis fi handicapé fi kenn du gis foofu am léget wala kenn du gis foofu feebar wala kenn du gis foofu foofu manqué parce que yére bee ko nëbb naka noonu la jigéen di nëbbale góor loo xam ne dafa manqué góor ñu bëri dañoo manqué te seen soxna xam na seen faiblesse waaye soxna si day dund ak loolu ne mu noppi ku jigéen ki aussi manqué ku góor ki xam ko trop noppi kon ndeke loolu yàlla ne sëy bi yére la ni yére di suturaale nit noon ndeke la sëy bi war a nekkee sutura ku góor ki war ko suturaal ba soxnaam ci lu neex ak lu naqari mu ne ñaareel bi al libaas yashuru saahibuhu birraha wa tumanin mbokk yi yére yenn saa yi yére bi da nga ciy yëg féex wala yenn saa yi nga yëg ci tàngaay wala yenn saa yi di nga am sa fooy toll da ngay yëg ne yére bi ma sol de su waruma ko woon sol lu tax sa parce que dafa tàng wala yenn saa yi nga ne yére bi ma sol waruma ko woon sol parce que fii dafa sedd kon yére bi dafay aar nit ci sedd wala tàngaay ah naka noonu ku góor day aar soxnaam ci seddaay ak tàngaay benn waaye day takk soxna mu ne man ak soxna si damaa bëgg man ak yow ni ñu sëyee nii àdduna ñu sëyee ko aljanna xam ngeen ne ñaar ñuy sëy ci àdduna seen sëy mun na continuer biir aljanna ci condition waa ji ne ko ne soxna si loolu nu mu nekkee mu ne ko saa yu ma meree rek neexal ma saa yoo meree ma neexal la damay liir démb rek ci Facebook bi benn waay bu mere jabaram ñu xuloo ñoom ñaar ba histoire bi tàng soxna si dugg ci biir néegam ubbi armoire bi xam nga jigéen ñi bu ñu meree rek xëcc valise yi commencé waa ji ñëw taxaw xool xam na li xew mu ne ko mon amour foo jëm rek soxna si daal di wàcc daan na ko yére yi tilim yi laay dajale pour sóot xam nga loolu la doon def mais benn baat bi mu wax rek moo delloo si waat soxna si gis nga kon ndeke affaire bi noonu yàlla waxee yére yi nga xam ne dafay aar nit ci seddaay wala aar nit ci tàngaay noonu la tamit sëy bi di nekkee lu aaru ci tàngaay ak seddaay benn waay dafa am doom benn doom dong la am ak soxnaam ñoom ñaar sëy nañu ay at ñu yéex am doom ndeysaan doom ji feebar waa ji bëggal la doom ji benn peeru bëgg boo xam ne gëmewu ko parce que daf ko yéex a am ci feebar bi benn bis mu xëy rek doom ji daal di gaañu ginnaawam dëkkandooy bi ñu ko yégee ñu daw ñëw yuuxu ñu bëgg a woo waa ji waa ndaw si ne leen bu leen ko woo bu ngeen ko woowee ñaar ñaari ñaari néew laay am kii moom dee na ba pare kii bu ngeen ko waxee doomam gaañu na rek balaa mu yegg si fi day dee bàyyi leen maa ngi moom seen yoon nekku ci ku nekk na dem këram toog kenn woowul waa ji kenn wax ko dërëm soxna si sang na xale bi ba mu set néew la mais sang na ko daal di togg ruy teg ci wetam waa ji daal di wàcc rek daw jubal ci néeg bi rek mu ne ko bul ko yee dee nelaw gis nga léegi laa ko doon rekkal ruy waaw bul ko yee de kii xam nga ne gëñ na nelaw waaw waaj ne ah xelam daal mu daal dem néegam simmeeku soxna si yóbbu ko mu sangu tegal ko añ ba war ko tegal ataaya nag nit ñaa ngi xaar waaw lan moo war xew kër gi ñu ngi ne teg kenn yëgul xew gisuñu kenn ku fay dugg gisuñu kuy fëgg bunt te néew a ngi fi bi mu añee ba pare ba naan di wax ataayal leen ma soxna si ne ko man de dama la soxla mu ne lu xew mu ne fii daal dafa amoon tey benn histoire ci suñu koñ bii mu ne histoire ban histoire la mu ne ko kër diw ak kër diw mu ne waaw lu leen boole mu ne diw de moo lañu abaloon dara ki ko abaloon di ko jël si mu ne du ko bàyyi mu dem du ko joxe diw lañu abaloon dara ki ko abaloon di ko del si mu ne du dem du joxe liñ ko abaloon jëkkër ji ne mais xanaa kooku dafa rep nit kay buñ ko abalee ki la abal soxla li mu la abaloon am na droit jël si ko mu ne yaa wax loolu mu ne waaw mu ne yaa ko wax mu ne waaw mu ne yaa ko wax mu muy ñetti yoon mu ne waaw mu ne ko ah yow tamit de liñ ñu abaloon yàlla jël si na ko mu ne ko loolal la mu ne ko kii tëdd xam nga waa ji amatul droit saalit kon gis ngeen ndaw soosu foofu lim doxal kon ndeke lii sunu borom subhanahu wa taala di ñu wax ci wàllu dencante suñu gisee tey addina bi lëndëm kër yi neexatul diggante yi ritaxatul nit ñi ñoo xamul li ñuy dund rek waaye yàlla li mu wax dëgg la parce que yàlla du juum jamais alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla nee na maa bind te li ma bind war naa ko xam benn teg yéen yi xam ngeen xam ne kenn du leen ko wax yéen yi nga xam ne yéen yéen yor garab yi garab gi ne xam ngeen lu muy def yenn saa yi kenn ñëw ne man garab gi naan naa ko jëriñu ma dara loolu la koy wax est-ce que niñ la ko waxee noonu nga ko defee. kon ku toll ne sunu borom dina bind góor bind jigéen bind addunaam bu yaatu bi espace bi defar ko ba mu rafet wàccee leen fi ne da ngeen fee war a dund aljanna ba pare affaire bi nekk safara est-ce que kon ñaar ñi fi wàcce xam nañ li ñuy dundee est-ce que xam nañ li ñuy def est-ce que xam nañ fi ñu teg seen tànk. loolu mooy wax ji li ndaw si waxoon waa ji maag yow mën nañoo dund ba fii dund aljanna nu muy waree mu ne saa yu ma meree rek neexal ma yow tamit saa yoo meree ma neexal la loolu mooy wax bi bu kii meree kii mer kii jóg simmeeku kii dem takku kii jël ceinture kii jël kudu curuwaar fu mu jëm du jur jàmm loolu mooy wax bi kon sunu borom def ñu ne ni yére di aare nit ci seddaay ak tàngaay ak ak ak noonu la góor war a toppatoowee noonu jigéen noonu la jigéen war a toppee noonu borom këram waaye kama yusturu libaas jamiil awraat illa ma la budda minhu fa kazalik ar rajul wal mara mbokk yi yére dafay suturaal ay awra ay ayib naka noonu noonu la góor di suturaale naka noonu noonu la soxna di suturaale borom këram ni nit di yégee ci yére seddaay noonu ngay war a yégee ci sa soxna seddaay soxna si noonu la war a yégee ci yow ni nit di soxlaa tàngaay ba mu yenn saa yi mu dem sol yére bu tàng noonu nga war a soxlaa nugg nga ñëw ci sa soxna am ko noonu nga war a soxlaa nugg ci sa borom kër nga ñëw daal koy am cinquième bi mooy al aqil yaxtaaru libaas yatawaafaru maahu kazalik al alaqat azawjiya mu ne nii di soxlaa yenn saa yi yére am na yére bii rek la soxla ci temps bii naka noonu noonu la góor di tànnee soxna ci temps boobu naka noonu loolu la jigéen di tànnee soxna dafa am benn góor dafa toog fajar rek benn waay fëgg buntu këram mu ubbi waa ji ne ko yaa moom toolu sàngam mu ne waaw ko ah man de dama doon tukki romb tool ba ci digg tool bi laa jaar ma gis raisin yi rafet neex rek ma dagg benn lekk mais bi ma bëggee génn tool bi rek sama xel ne ma waaw yow de def nga loo xam ne jullit du ko def ndax laal nga alali jàmbur te dama doon tukki mais dama dagg tukki bi ñëw pour nga baal ma raisin bi ma lekk ndax kat bëgguma dem ak sama borom sama biir bi ma dugal ci lu ma lewul loolu dong ma fi indi góor gi ne ko baaluma la waaw lu tax mu ne ko ci condition condition bi lan la mu ne ko da ngay egsi ba ci biir kër gi toog ma wax la ko waa ji daal di ñëw toog mu ne ko dama am doom bu jigéen boo xam ne jamono yëpp maa ngi koy utal borom kër mën na fukki at awma ko xale bu jigéen bi dafa gumba dafa tëx dafa lu dafa muuma borom kër rek laa ko doon utal nag awma ko léegi nag yow soo ko bëggee takk rek ma baal la soo ko bëggul moom nga dem ak yowmal xiyaam ba nag yow bañ daje rek nga fay ma ah waa ñu ne góor gi loolu doy na waar di nooma baal rek benn raisin la mu ne déedéet condition yi daal mooy soxna si daal soo ko bëggee ñu may la ko ma baal la waa ji xalaat alaxira bu demee ci yàlla xam nga ñun li li ñu sonal mooy dërëm bi mun naa ko lekk garaawul après dinaa ko ni négocier maak sama borom wala bu ma ci tabaxee jàkk garaawul quoi million bi bu ma ko jëlee bu ma ci tabaxee jàkk garaawul yàlla dina ma comprendre wala ma dem ci umra wala ma def ci nangam waaw wallaahi yonent bi nee na man ak la luqmatan min haram la tuqbal lahu salat arbaina yawman soo lekkee benn dërëm bu araam soo jullee 40 jours yàlla du ko nangu benn dërëm laa wax bu araam su araamee bu duggee sa biir bi 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu yonent bi nee na kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awlaa bi bépp alal boo xamante ne cosaan bi dafa araam yonent bi nee na safara moo ci yey waaw jullit warul lekk lu araam waa ji xalaat xalaat ne ah waaw léegi waaw xaaral ma dem tàggu ji samay mbokk xoola waa ji dagg na tukki bi lan moo tax mu dagg tukki bi benn raisin bu mu dugal ci gémmiñam te moomu ko bi mu demee wax ko yaayam yaayam ne ko ah xoolal rek li yàq sa àllaaxira daal moom fexeel ba bu ko def comme loolu la wax ah demal nga jël mu daal di ñibbi si ne góor gi waaw nangu naa ñu daal di def mariage bi moom gisul xale bi moom mu ngi am naqar mu ngi toog mu ngi beru yëgaluñ ko kenn guddi jot na takk nañ mbaam mi indi nañ xale bi mu ngi ñu ngi ko muur dugal nañ ko ci biir néeg bi moom mu ngi ci ëtt bi toog ñi indi woon xale bi ñibbi nañ léegi nag moom war na dugg néegam fekk fa séetam mu dugg gis mu ngi muuru mu cëy seet bi da xaw ma lu ma koy doyee ku gumba tëx lu muuma mu muri mu gis xale bi xool ko mu ne waaw man dama jommi wala lan man kat kii dañ ne ma woon dafa gumba yow sa baay dafa ne moon dafa gumba xale bi ne ko man gumba mu de mu daal di wax te dañ ko ne woon daa muuma mu ne waaw yow sa sa papa dafa ne woon dalaa muuma mu ne wax na dëgg de damaa muuma du musumaa wax lu bon mu ne dafa ne woon dangaa gumba mu ne musumaa xool lu bon mu ne dafa ne woon da nga tëx mu ne musuma déglu lu bon mu ne dafa ne woon dafa lafañ mu ne musuma dox ci lu bon waa ji daw ci góor gi ne ko yow da nga maa fen li nga ma waxoon ci xale bi gisuma ci dara mu ne li ma la waxoon lépp dëgg la lan laa la waxoon mu ne dafa gumba mu ne musul xool lu bon bu mu ko waxoon yëpp bu mu ci yeggee mu ne ko musu ko def mu ne nag ma ko doon wëral bërëm kër bu baax yow nga lekk benn raisin ñëw di ma baalu ma xam ne yow mii yow la benn raisin nga lekk nga munoon doxi say soxla munoon wëri waaye ngay ñëw di ut ku la baal yow ku la may jigéen nga téye ko mu ne looloo tax ma wax la ne yow la kon gis nga mbokk yi ndeke mbir yi dañuy tànn comme ni ngay tànnee yére yenn saa yi ma wax jigéen ñi bu ngeen gàddoo seen saak dem marché di tànn yére da ngay gis benn jigéen yéen borom kër yi seen soxna da leen di taara da leen di tàggu 8 heures ci suba ne la maa ngi dem Sandaga ci période tabaski lu muy jëlee yére ban heure lay ñibbisi 4 heures du matin ndax lan di tànn rek benn peeru yére benn façon benn couleur benn benn xoolal loolu rek dañuy tànn yére d'accord ngeen góor ak jigéen ah dañuy tànn dàll gaa ñi sax dañuy tànn mbax na dañuy tànn montre dañuy tànn lépp mais dara desul lu dul sëy accidentalement la daje ci benn kii rek ndaw si tollu fële di xonk wala yow waa ji tollu fële di leer di mex-mexi rek nga ñëw dugg loolu moo tax ñu am problème te yàlla def na woon nan tànn kon mu ne ni ñuy tànnee yëre ci jamono noonu la ñuy tànnee soxna noonu ta aussi la ñuy tànnee borom kër. nee na pour sunu relation diggante góor ñi ak jigéen ñi pour muy mën di continuer kenn ku nekk di nëbb manqué manqué yi kenn ku nekk wax xam li yàlla bëgg ci moom foog ñu dund aaya bi li yàlla ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna foog ñu def ko place yére foog ñu def ko place yére léeg-léeg nga sol yére yére bi xat ci yow torop waaye doo ko simmi de di nga toog ci place boobu lu la yére bi gene gene di nga ko gérer di nga ko gérer di nga ko gérer di nga ko gérer ba ñibbeeg moom wala naka noonu soxna naka noonu borom kër léeg-léeg nga am sa soxna mu doy waar trop mais nga gérer ko gérer ko waaw benn waaye dana yonent bi alayhi salaam waaye man sama soxna doy na waar de ne lu nekk ci moom ne ku ko teg loxo rek mu ànd ak yow ñu ah léegi loo bëgg fase ko mu ne ii dafa rafet de mu ne kon muñal te gérer ko muñal kon muñal nga gérer ko jëm koo dindi ci loolu waaw kon noonu yàlla waxee yére bi ni nga muñalee yére bi ci yaatuwaay wala xat wala nangam wala nangam wala nangam yenn saa yi ku ne ba ma ñibbi wala ba ba ba bis bi passé naka noonu kon ndeke mbokk yi la ñuy tamit gérer mbirum sëy yi mbirum diggante yi pour li yàlla subhanahu wa taala bëgg pour mu mën a nekk beneen bi mooy ànd bi dafa war a nekk lu jëmm warul ànd jigéen warul ànd góor ngir intérêt góor warul ànd ak jigéen ngir intérêt wala taar wala wala wala lu tax parce que yooyu yëpp dafay dañ soo àndee nit ngir alal waa alal bi jeexee nooy def soo àndee nit ngir taar bis bu ñaawee nooy def kon lan moo war a tax mooy yàlla te yàlla moom du jeex yàllaa tax nuy ànd yàlla moom la ñu jiital suñu kanam moo tax gis nga bu ñuy takk sëy bi ci jàkka ja lu ñuy wax yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin wahida yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw ñaan si parce que yaa ayuha nnaas la ñuy wax foofu kenn dox yaa ayuha allazina amanu aaya buy jeex yàlla neex wattaqullah allazi tasaauna bil arham ragal leen yàlla mi nga xam ne moom moo tax tey ngeen di ànd moo tax ñu ne sëy contrat la boo xam ne ñaar ñi koy def kenn ku nekk dafa bàyyi lu bëri ñaata jigéen la ay góor yu bëree bëri topp ci ginnaawam mu ne déedéet man tànn naa ba pare yenn saa yi sax say mbokk ñëw ne la yow doo ñi fiy ñëw doo xool diw mu ne déedéet naka noonu ku jigéen ki naka noonu ku góor ki moom tamit bàyyi na jigéen ñu bëri léegi yow nga bàyyi moom mu bàyyi yéen ñaar ngeen daje kon lu ngeen war a sàmm waaw dafa am bëccëg yoo xam ne ku góor waru ko fàtte ku jigéen waru ko fàtte suñ defee bëccëg yooyu seen kanam ñoom ñaar rek seen sëy dafay neex parce que yàlla loolu la ñu wàccee pour suñu sëy yi neex pour dund gi mën a neex beneen mooy mbokk yi sëy bi li tax yàlla def ko pour mu war a neex mooy dañu war a am ñoo xam ne ñoo judd ci sëy bi te dañ leen war a aar xale bi dafa war a juddu daan na yaayam jërëjëf tànnal nga ma pap ah xale bi dafa war a màgg daan ne papaam jërëjëf tànnal nga ma yaay ci jamono Seydina Omar dafa am benn waay bu toog rek benn góor yegsi Omar dafa toog rek benn góor yegsi daan ne ko damay clamer sama doom mu ne lu mu def dafa am alal joxuma ci te dëkk bi moo fi ëpp alal Omar ne woolu leen ko xam ngeen Omar moom dafa tàngoon ne woo leen ko ñu jëm jili waaji bi waa ji toogee ci kanamu Omar mu ne ko xam nga góor gi toog waa ji sëgg xool muy papaam mu ne waa xam naa ko kay mu ne lu ngeen bokk mu ne sama papa la mu ne waaw lu tax nga dégg yonent bi ne alwaladu min kasbi abihi doom day ci pàggu téefu baay la bokk moo tax soo amee alal doo jox sa papa azaka doo jox sa yaay azaka pourquoi fal force da nga leen war a dundal papa ak yaay kenn du leen jox azak kenn du leen sarax mais say sœur mun nga leen sarax mun nga leen jox azak say frère mun nga leen jox say nijaay ñoo ñëpp mun nga leen jox sarax mais papa ak yaay jamais ñooñu fal force la bu la neexee bu la naqaree da nga leen war a dundal Omar ne waa ji xam nga góor gi mu ne waaw lan la mu ne sama papa la waaw lu tax nga am alal joxoo ko mu ne moom dafa am ay àq yu mu yoroon defu ko moo tax man tamit li ma waroon du ma ko def Omar ne moom dafa am lu mu la yoreel def ko mu ne waaw lan ak lan la mu ne lu njëkk daf ma waroon utal yaay ju baax daf ma waroon utal yaay laaj ko fan la bi muy fan la fore sama yaay laaj ko ko góor gi sëgg mu ne ñaareel bi mu ne bi ma juddoo daf ma waroon tuddee tur bu baax mu ne xam nga nan laa tudd mu ne joxolaan xam ngeen joxolaan lu muy teg ci olof muy mbërëngaan xam ne gunóor yi nekk ci àll bi di bërëng mu ne loolu laa tudd mbërëngaan la ma tuddee mu ne ñetteel bi mu ne dafa waroon jàngal jànguma kon kii yàlla wax duma ko def de Omar ne góor gi yow yaa jëmbat kaani yaa ko roose mam maagu ba mu tóor tóor ba ami doom kon lekkal ko diw leen ngeen dem kon sëy bi li tax yàlla subhanahu wa taala ne ku góor ak ku jigéen nañ ko def mooy pour am na ñu ciy ñëw ëllëg kenn ku ci nekk da nga war a am foo foo wéeru ci bàyyi joo xamante ne saa yu génnee ci mbedd mi suñ ne bàyyi diw mu ngi ne xale bi du sëgg ci yaay joo xamante ne xale bi suñ ne yaayam a ngi nële xale bi du sëgg loolu la sunu borom subhanahu wa taala santaane pour ñu aar ñooñu xale yooyu pour ñu mën a màgg nekk ci keppaar goo xam ne dañuy aaru ci góor ak jigéen dañuy wax ne wara aw kullu azim imra ponkal moo gis muy dem di daagu jigéen moo nekk ci ginnaawam jigéen moo nekk ci cummikaayam kon aka neex mu xam jigéen boobu kan la ki lay sëy sa cummikaay du nekk n'importe qui ki lay war a jural say doom waru nekk n'importe qui kon mbokk yi beneen bi mooy léeg-léeg yàlla subhanahu wa taala nattu la yow ku góor wala yow ku jigéen nga mébét am benn jàmbaar fàkk tëdd ci nangam ci nangam ci nangam wala nga fes yéene mébétoon am benn jigéen bu mel nangam ak nangam ak nangam nga dugg am loo gis am loo gisul léegi li nga gis noo war a def encouragé mu dem li manqué nga mottali li manqué nga mottali misaal da nga takk soxna mokkul sax Fatiha est-ce que da nga koy bàyyi si parce que mokkulul Fatiha déedéet dan la sant yow nga jàngal ko soo ko munul nga ut ku ko jàngal soo amul temps bi nga ut ku ko jàngal kon doone man damaa bëgg lii aw ma ko rek jeex na li nga bëgg amoo ko ngay wut yow nga jëm ko def wala ba keroog muy sotti aywa comme séeréer yi dañoo sonn kon su ko defee bu ñu ñëwee pare ñu def cinq minutes rek ci ànd bi nekk bi mu doylu loolu ñu ñaan yàlla mu mu barkeel loolu séeréer yi tukulóor yi kay bu doon ne mën nañu continuer wax